kaw weeleel loolu luñ ci wax lan nga defe ne mooy saafara bi ak euh, ndax duñu àgg ci lii suñu borom santaane woon ku rey ñu rey la loolu la yàlla santaane waaye gannaaw nag danoo nekk ci da danoo nekk ci nuñ tuddee ci kii bi laïcité laïcité moom dama leen laïcité du caagi nag laïcité li mu firi mooy laïcité day mel ne dañuy xañ julli yi droit xañ leen euh, l'islam te yàlla dana fan laay isati wali rasuli wali mu'minin teraanga moom yàllaa ko moom te deena julli ji laa ko jox lay sita nag laa xisata lay firi day mel ne teraanga la ñuy jéem a xañ julli loo ab yàlla bi nag ku ko teg ci suuf beneen boo mën di lonki dadul mën a sotti waaw ah. ndax fi ne loolu donc ku ko fi defen ñaar ak ñett ña ca des bàyyi waaw ah. waaye gannaaw droit de l'homme daa taxaw te droit de l'homme toujours wet gam far waaye ga ca des douleur de l'homme la fay féete kañ dal ci kawam gaañ ko donc eh, ña a faj loola nag lay faral gannaaw yow ka xas dee moom pen bu ñu mën di tëj kii eh, fanu gudda ay ci pen kane ca kane ca baax kane ca kane ca xabru yo moom penam jeexagul beneen pen buñ ma sa siise kii nag bu fan yu guddee mu génn ci waaye ko ko yóbbu fa kookee dem moom ñi ci des danañ ko bàyyi sàcc jëkk yi bu yu tubaab bi ne dañ leen di ngemb dugal leen ci sib yi ñu daan yor wër ak ñoom marché yi ngoro gu ñu amoon ci dëkk bi mu tas keneen ku doon waaj sàcc ci mel ne ñoom da nga ne lii danaa ci génn waaye ganaa dañ koy làq wan lak ndong ndong goo mën a xamee kenn daam kuñ ci mën a ceen nu jox la gannaaw yi ndongo lañ lay woon ak ndonga xootitaat mën a si joxam nit